Amen. stade Jom Iba Mar Jam production la BGM des promoteurs moo ñu fi woo ndeysaan xale yaa ngi noonu arbitre bi sifflé na Djiné 2 Modou Lo Jaay Prek ndeysaan ñaari yaa ngi noonu ndeysaan Djiné 2 jiital tànk càmmoñ Modou Lo jiital tànk càmmoñ jokka sante nañ door na la ilaha illallah Ndeysaan Dina Dóor dóor na uppercut Modou Lo ngay fayu ci suuf Modou Lo ngay fayu Rokas Dina Dóor Modou Lo ñoom ñaar xale yi ndegeyante Dina koy bëgg a bañ na Dina jël na ko laay la laa ko ci suuf gàddaap na doy na Dina Dóor daan na Modou jaay prek nee na gars yi ndànk nee na leen rakk Papa Boy Djiné la bàyyi leen ko xel ndeysaan Papa a ngi noonu dugg si na ndeysaan rakk ja daan na xale bi ndaanaan la ci làmb ndeysaan waaw waaw oh ndeysaan ndeysaan ma nga noonu Djiné dellu sul ci ni nga bëri la nee naa la bis mbër bu nice moo siy daanu te kii daa rafet gentleman la moo tax si bis bu rafet lay daanu. même prise même prise nga daanee jël bi passé même prise même action seetaanoo la bu baax du sax benn man damay bëri damay ma ko xam. jinne bu ndaw. jinne bu ndaw. waaw wuy na. <laughs> mais Ziza nuyu naa non fay naa la ba am fay la quoi. dama wasaare ñoo tax. mais loo may mais. non damaa def sama affaire ñëw. te boo ma soxlaa ma ñëw booy. non garaal mais fal naa yow soo ne. ñu ngi sant yàlla ba. dafa mel ni yaa ngi baax de. waaw maa ngi sant yàlla nan alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ndax jaan ji matt ma. jaan ji mattagu la. matt ma matt ma. mais ci mystique fi mu toll. non wax ma yaay moo ma ñaanal ma baay moo ma ñaanal instant amul lu may tiit. maa gis léegi Cheikh Touche naka nga ko gisee. waaw waaw waaw waaw alhamdulilah quoi parce que mi ngi si pleine forme quoi mi ngi ci forme quoi. tey bés lu mu laaj. ma def nii rek la laaj quoi dal dal laaj quoi kaf comme ni ñuy kafee yàlla suñu borom defal ñu jàmm ko parce que nitu jàmm laa moo tax. moom dina laaj xeex. non din foog moom xeex quoi su fekkee da ngay nit xamoo nga naan ay dama lay ñëw duma boo tegee stade kii ma daw kii ak yooyu yëpp maa ngi koy déglu rek moom mooy xale quoi man maay mag quoi. waaw donc yéen laamu ji. dinaa def yëfu mag. waaw. dinaa def yëfu mag de. ci kanam. amul benn problème ba ci kanam. dégg dal jàmm yow dal jàmm. donc nuyu naa. waaw ñu lay fay. ci loole. maa ngi sant maa ngi sant bu fan yi gars yi gis na laa gis la nga ñëw ci làmb li wooloon sa teewaay tey ci làmb waaw bilaay ginnaaw ma sant yàlla jur sont bi maa sama ñaari waajur waaw man maa xewle rek parce que nit sax xam-xam bu xewlee day mel ni comme Seckou Ndongo Lo moo xewlee anaconda laa an tey si làmb bi mais ñu ci bëri yaakaar nañ Ndongo Lo bu demee dootul ñibbi si waat lan moo waral nga dem ñëwaat waaw làmb mooy sama métier amul làmb xamam moo tax ne entraîné faju waale ñëwaat incha allah di xaar combat euh, gaa yaa ngi wax bi waaw ñu ngi wax nag ma ma maa ngi déglu nag ñu wax maa ngi déglu quoi waaw. waaw baax na kon ba ci kanam. sant yàlla bu baax ñoo fa. Adama jëlal fii. mais Abu nuyu naa la. fay naa la fay naa la ci loone ñu ngi sant bu baax a baax a baax. mais naka nga ñëwee ci làmb ji andi sa poulain. ak ndam borom bi dafal ko ndam taxe te loolu lañ jëm te liggéey nu ko. est-ce yow lay jël revanche. non bien sûr di ko ñaanal yàlla dafal ko ndam. yow jot ngaa laale Pape Ndoye lan nga ko conseillé. mu def ndànk rek. te xam ni sa waay xeexul day day dafay naxe quoi. waa Pape Ndoye waaw yàlla na ko victoire bi jig nag. mais incha allah Takka Tey am ndam si kàttanu yàlla suba sama booy mooy bëre sama rak sama frère muy yuusu tamit waaw suba maa koy indi arène nationale borom bi defal ko ndam ñaanal dëkk ba ku fa mu borom bi na la defal si kàttanu yàlla ay jël Adama gaa jël bi was wasaare was wasale waa ba nga jël nii Adama jëlal ma ñii. Ah, yeewu leen. soo bëggee dégg-dégg ba ñi la àndal. waaw wasaare was wasaare wasaare. tey kan nga andi. tey Bébé Ndiambour laa andi mbër maa ngi nii taxaw Bébé Ndiambour am mbër yaa ngi dégg déglu mbër jamono bi nga am mbër booba sama maam booba booba benn tànk loolu doxee xam nga na xaaral moo yow ku la jamono la xaaral ma nekk say baaraam yow man yow laa bëgg maa la wax ak seen naa mel waa wasaare bon ñëw na ba Ndakaaru. waa Léo wër nag mi ngi jiiri mbay sama koñ. su dee jiiri ma ne kat naa la si waa ji. mais tey ban mbër nga andi tey. ay bébé njàmbur laa andi bébé saa njàmbur mi ngi nii taxaw mooy mbër ne woon naa leen xar mu ñuul mi sàngoo tarbiya bi bu futee ko fuuta am borom njàmbur daal gi am mbër dañoo nam mbër mbër maa ngi nii su bëree ba pare di nga ñëw dinaa la invité sama kër barki sëñ daa xamel mais soo bëggee dëgg ma dama la bëgg parce que wasaare di ñoo was wasaare wasaare was maa la bëgg mais maa la gën a bëgg parce que question waxoon na ma ko sankat néew yi sankat néew yaa que man tey su ma demee bàyyi mbër xoolal ji man lay war yaa jili man lay wër tey nii jël combat lamb yaa ngi ñëw teg ci lu xonk li booy jóob eh, eh, xale yi dañoo ñemente bébé ñaambur booy jóob bébé ñaambur booy jóob eh booy atul booy atul bébé atul plaqué na ko booy jóob bébé ñaambur plaqué na yi dañoo tolloo doole Bébé Ndiambu Boy Diop. Bébé Ndiambu Boy Diop. allo allo Bébé Ndiambu Boy Diop. allo jël ko nga am. Bébé Ndiambu Boy Diop. dafa mel ni benn bët ba gisatul. abit ba attan na ko bët ba gisatul Bébé Ñaambur Boy Diop. Boy Diop gisatul. Boy Diop ba daa patt. ay waay njóobeen ya. ko wóorul. njóobeen ya seen benn bët ba. nañu ko def neexuma. neexuma de. <laughs> Boy Diop Bébé Ñaambur. xale yi dañoo ñemente. ku yamuy dóor. fu mu dal buntu feeñ. Bébé Ndiambour moo jóg kon na ko file jël na ko Bébé Ndiambour la ngay maye daa bari Bébé Ndiambour Boy Diop fàq na ko fàq na ko jël na tànk ba da koo bëgg a xar waaye booy Bébé bañ Boy ba ngay bëre Bébé Njambur Boy Diop jël na ko daan na ko Boy Diop daan na Bébé Njambur oh daanu na Bébé Reug Reug Diaw Diop Bébé Reug na jël tànk ba Diaw Diop Bébé Reug Reug ko bëgg def Bébé Reug Reug Diaw Diop Bébé Reug Reug na ko lu ko bëgg a def flexionné na wër na ko ndomba Bébé Reug daanu Bébé Reug daanu na Diaw Diop daan na Bébé Reug Reug eh. <laughs> Bébé daanu na yaa ko waxoon ne yaay firmaal ne dama lay wax lu garaaw le 5 mars ku ñëw Iba Mar di nga kontaan tam na jili daaw lu ma lu ma war a jël si làmb loo xam dama koo moom war koo jël si an seeg sama xarit PDG Omar Sow loolu rek doy na feesal na Omar Sow kese xaju ci stade bu ngor nga jël ko boole ko caatu rëbës non xajuñ fer. barke Aroxa xajuñ esaat ak gise fer bi force. dégg nga lu mu la ji di ñoo ci adal ñoo doy ku ñu mel ni Pura Lava ak ñeneen ak ñeneen mooy loolu. dañuy ñibbi jox sa cameraman bi il faut ma gis ko il faut il faut ma laa ko sekk. du mun a ragal wala. kon it nañu la jox ma. dama lay jox loolu nag. léegi nag. leeral nag le 5 allah woo ñëw. faire prêt rek ma ñëw feesal stade bi barki alxuraan. ragaluma loolu quoi xam man dama nag ay ñu may jàppale ñoo xam ne ay champion lan ay nit ñu baax lan ay góor lanu ku ci mel ni PDG Omar Sow képp ku xamul lu ma def social yaa ngi koy parce moom day jàppale lu moom day sax koo xam ne leneen mu koy jàppale ci lépp quoi yaa ma gën a xam mooy loolu noonu barki alxuraan Caatu Bawol Souleye Gaynde Souleye Gaynde moo ñu féete à gauche Caatu Bawol moo ñu féete à droite Caatu eh, Mambaay Souleye Gaynde Souleye Gaynde Caatu Mambaay eh, Souleye Gaynde cokkaas na Caatu Bambay Souleye Gaynde Caatu Bambay eh, Souleye Gaynde xale yi weccoonte nañ ay coup caatu bambay su lay gaynde ci co door na ko mu rëpp caatu bambay xeex na ak su lay gaynde jël na ko jël ko jël ko caatu bambay daw na paquet ko lu mu koy def da koy daan na ko waaw waaw caatu bambay daan na su gaynde caatu bambay daan na su gaynde caatu bambay jël na ko Zoss damay def ndànk parce que daa jàpp ne ay naataangoom ci làmb du cargo mais na def ndànk moom tas yaakaar xale la boo xamante ni mën na bëri mais cargo mi ndaanaan la ndax day bëre simple daje naag Serigne Ndiaye numéro 2 mës naa dajeeg ay ndaanaan jëli na ko gis nga ma ngay dóor gis nga ku ña xeex. lu ma la waxoon Ousseyn. lu ma la jël na ku. waaw waaw Kago daan na jël na ku Ousseyn lu ma la. jël na ku. xeex ba tegu ko ci yoon. jël na ku Ousseyn. daan na jël bu ko bett. daan na jël bu ko mett parce que lamb Ousseyn saa su sooy bëri ci lamb li nga mënee bul ko bàyyi. bu ñëpp ne da ngaa mën a bëre boo ñëwee waneel bëre. ba gars yi nañ bàyyi di insister ci ay 6 millions 6 million du xaalis Fatma man 17 combats laa bëre ci lamb 17 combats du man bu may bëree 17 combats ba tey ñu may fay 6 millions ci lamb jot na ma bàyyi lamb dem Europe toog comme samay morom teraanga teraanga la man nekkuma fi pour toroxal sama njaboot nekkuma fi pour lamb ñu naan soq soq di ma tudd di coow soxlawu ma coow boobu lamb dama ciy liggéey pour am alal pour dimbali sama yaay dimbali sama soxna dimbali samay rak nekkuma ci pour bruit kese su doon bruit kese moo ma ci bàyyi damay bàyyi lamb sama combat Gamou Gueye man samay propre moyen yoo xam ne ak samay nit dépensé naa ci huit millions maa Gamou Gueye bii passé barke Serigne Saliou Mbacké bi njëkk a yàqu nag laa wax waxuma bu mujj bi bi njëkk a yàqu dépensé nañ ci huit million mu yàqu ñu perte ko kenn joxaatuñu fukki dërëm kenn joxaatuñu dërëm bañ ko jàppaaree samay mbok dañoo jël liñ am lépp def ko ci ma daan Gamou Gueye taxawaat fii xëy ñu bëgg maag franc ñu naan ma six millions six million du xaalis dañ ko jël teg ko fële man lamb visé gu ma ci xaalis léegi xam nga lu ma ci visé nekk ci champion ba pare du xaalis bi mais tey ku ne xam ne Sokh ak Franc du combat wu caaxaan combat wu carrière nit ki la parce que man ak moom dañoo am fu ñu toll foo xam ne da ngay daan dem ki daanu xaar kon tey loolu boo koy bëri da nga koy bëri ci fulaak fayra gars yi nañ bàyyi yu ñuy def man tool dépassé naa fu ma promoteur di naxee wala fu may tegee xel. waaye su ma juumul euh, franc loo am na ñu bari bañ ko yàq sama yoon ndax lamb daan ak daanu moo ci am ak match nul dañuy ñaan yàlla bu ñu bëree ak franc daan ko jéggi ko dem mais du loolu moo ñu bàyyi ci lamb. gars yi buñ jël naan ay 6 millions 6 millions 6 millions weccit la su ma ko jëloon suba suba suba suba balaa ñuy def un mois mu jeex ba may wuti lu ma préparé sama combat. bari dañ lay jëwee kat 6 millions yooyu que soq mës na koo kii am na cachet bu ëpp lool parce que ñu bari nañ ne million kat yaa ngi la ñii de ma leen bugguma ko. Franc man maa wàcc pour bëreeg moom man maa ñëw ni nañ ma jox Franc ma bëre ak moom. mayu ma ko changé raw ma ko raw ma xale la may xale deful ci làmb lu ma ci deful defu ma ci lu ci deful may ma chance Franc de ki nga may chance mooy ki nga raw. li tax ma ne damaa wàcc pour bëre ak moom parce que damaa xam ne maag moom ñoo fi nekk mooy combat jànk soxla ma combat bu yomb ma doon ma ñëw pour bëre ak moom mais bëre ak Franc taxul mu may taxaw ñu naan ma 6 million may bëre ak Franc bu may bëre moom 6 millions képp kuy sama mbokk war nga ma yedd. bëreewu ma ci làmb pour ay weccat man dama bëre ci làmb pour am kase boo xam ne suba bu ma bëggee tabaxal sama yaay kër tabaxal ko bu ma bëggee faj ay soxlam faj ay soxlaam lamb bëreewu ma ci pour am tur kese. yee dama ciy bëre pour gagner si li si gars yi di su ma bëree 17 combats man ba tey ñu may fay 6 million war na ma war naa bàyyi làmb 17 combats laa bëre du ma xale bu ndaw ci làmb. mais soq ñu bari yi muy laaj dafa bëgg ku ko fay 6 millions mais fay ñu ko 6 millions pour mu pour mu digganteem ak franc. barki yonent yàlla Mouhamed sama ménagère ak may dégg fay nañ ma 7 millions bëreew ma ak franc man man amul lii laay bëgg wala lii laay bëgg man du ma faux type man lu nekk ci man laay wax lu nekkul ci man du ma ko wax. dama ni laajuma ki am ñaata dama am staff loolu du samay mbir ma am lii damay leeral rek. parce que promoteurs yi dañoo tàm bu ñëwee waxaal ak yow combat bi taxawul ñu ne combat si diw la yàqoo marchandise jënd ak jaay la da ngay yor gis marchandise ñoo waxaal ak borom ba jiboo fay bu boo jiboowul ak borom da ngay dem xooli beneen marchandise mais promoteurs yi ñoo tàmm buñ discuter ak yow combat bi déggoo waleen ci prix ñu génn ni combat bi ci diw la tegee diw moo daw combat bi daw ma nit sama staff ak may dégg man maa ni maa fi bàyyi mbër yëpp ni nañ ma jox Franc ma bëreeg moom su ma su ma amoon lu may moytu ci maanaan leen bëréew ak Franc kii laay bëreel am naa ci droit 17 combats laa bëre bëreeg samay morom yëpp ku ma bëgg a bëreel ci moom mais maa bëgg a bëre ak moom. mais fi may seen frère seen lépp bu bëre ak yam tere mu nekk mu nekk moom seen frère mu nekk combat am coow gars yi yow nan nga gisee combat boobu ñu naan Balla dafa jeexal dafa war a bàyyi bëri yooyu man gëw ma mbër du critique mbër rawatina nag may mbër bu ndaw ñoom ñu def ci làmb lu ma deful ci làmb mbër du critique mbërëm bu mbërëm loolu amateur ak supporter a ko moom man xam nga lu ma xam Balla Gaye daa waroon ñàkk bis bi ñàkk na ko ñu ngi koy encouragé bombardier yàlla na ko ndam li jik ci barki yonent bi yàlla leeral yoonam ñiy critiqué Balla Gaye nañ xam ni làmb moo demee noonu ndax indi na fi état bu nekk daan mbër kon tey bu ñëwee nii ñàkk na ko nit ñi encouragé ay supporters encouragé ko xamal ko ni ko lii moo ñu naqari lii moo ñu mu dem defari loolu leen naqari mais mbër du critiquer mbër man awma lenn lu may critiquer Balla Gaye 2 wala benn affaire bombardier laay félicité di encouragé Balla Gaye wasalaam. léegi nuyu naa la. maa ngi lay fay. tey mu dem ba dara jàllale bis seen diggante yéen ñaar lan la ak bis bi tey ban yëg-yëg nga ci am. sama rakk la sama jarbaat la sama doom la. ndax lii mu def dafa sedd sama xol ku xool xam ne sama xol neexul fan yi waaye lu mënta ñàkk faw mu am yal na ko yàlla lafal cat ku xool laal laal ma ku laal jamay kee laal ma maa ko wax maa tey ku laal jamay kee laal ma maa ko wax maa tey sama rakk sama ndax lii mu def dafa sedd sama xol te su ko neexul bañ koo def mu ñëw Thank

Anaconda Valérie Baye Djili ñoo gisee ñaari xale yi Anaconda moo féete à gauche moo féete à booy xool ki di Anaconda mbokk yi moo xaw a tuuti waaye est-ce que moo ëpp doole ñaari xale yaa ngi noonu ci digg yéew bi Baye ñaari xale yaa ngi noonu Valérie moo la féete càmmoñ moo la féete ndijoor Anaconda moo la féete càmmoñ ñoom ñaana drapeau bi tur daa wuy borom. ndax bu ñu nee ku duppee drapeau bi ñu ne Lirou Diane ku ñu duppee drapeau bi ñu ne le monument de ñu gis Alioune Seye ñu gis ndeysaan naanaanu Guédiawaye yi xale yu ndaw yi xale yi nga xamante ne dañ koo bëgg di ànd ak moom mu leen di safoo ñëpp ñëw ànd ak Lirou Diane tey bu ñu ko tuddee drapeau bi jaadu na ñuy félicité bu baax Jamaïcain bi nga xamante ni moo jël daraja moo jël drapeau bi dara jaale ko ki nga xamante ni mooy liiru Diane en tout cas ñoom ñaari xale yi Valérie mu ngi jiital tànk ndi joor ah, Anaconda mu ngi jiital tànk càmmoñ ñu ngi liwaatoo nag fausse garde la garde normale waaye ragal naa bu ñu xeexee dinañ jàppante te bu ñu jàppante dinañ bëre jëli na ko Anaconda jëli na Valérie mais Valérie Ousseyn dafa dëgër dafa diis la ci bëre waaye Anaconda kenn du moom ndax njool la bëtt na ko. war na ko ndombo daan. na. bëre na bëre bi daan na daan bi. daan na Valérie daan na ndeysaan xolal Ndongo Lo daaw na dugg ci digg géew bi am nañ ndam ndeysaan yuuxu na ah Anaconda daan na bëri na moom Anaconda daan na daan bi làmb jeex na ndeysaan làmb ja jeex na Anaconda ngay rek yàlla moom mooy ndam rek mënu ma ko laamu la rek mais waa laamu ñu waa laamu ñu nañ xam ne si laamu laa bokk lamb yi wax lamb ñu xam ne si lamb laa bokk maa ngi sant waa Bidda yëpp nag ku dellu déglu lu mu wax. ba léegi naanaan yi dañoo bëgg a bëgg a fàtte si lamb mais man naanaan laa si lamb du mag kii daa la ko dem bàyyi na ko yaakaar ba léegi naanaan la kii bu jàppee nañ jàpp rek. yow jàppal rek. waaw. ngeen ñëwee tey. waa ji nuyu naa la anam naa. naa dama ko bëgg quoi. fu la ñu bari. taata boo téye réew. non da koo na ma. maa leen gis chaque jour. voilà. xam nga ni boo téye réew. ci loxoom yàgg na. sa tante ak réew mi. ndax naa mooy sama tànn. Ah, ah, ah, barke sëñ Fallou. waaw noo noo noo noo ngeen indee tey taqe. waaw mais comme ni ñu daan ñëwee rek. waaw nekkul lu spi eh, eh, eh, ni waxee nekkul lu spécial nekkul lu ñu musul gis ñun dafa jot chaque jour bu ñëwee làmb ñu xam fu ñu taxawee comprendre nga. parce que chaque jour wax rek. am doy daa dugg Langsar daan euh, Abu Ñaase duggaat jël taqe. te nee na génnaat de. damaa xamul ba xam da ngeen koy freiné wala day dugg. bu si takkee du laal Abou Ndiassé. Ah. lu leer laa lay wax. mbër mu siy sëb ba duggul lamsaar. boo jëlee ki nga war a jël barke alxuraan doo génnaat. du génnaat lu leer laa lay wax tey ndam ndam ndam rek moo ñu te moo may xeeñ ñi sax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan nu ngeen nu ngeen ñëwee tey. waaw yar ak teggin dal. taxe dal xam ne moom xam na ni sa waay xeexul day wax rek. ñun nag gaan kenn duñ nax ñaari yoon waaw di ñaanal taxe ndam sedd guy suba tamit sama frère day bëre sama rakk muy Youssou arène nationale waaw di woo ñëpp borom bi dafal ko ndam incha nu ngeen nu ngeen ñëwee tey. ma nu ngeen ñëwee tey. waaye ndam rek ndam rek lañ ñëwee di ñaan yàlla suñ borom motali ko jox ñu ndam ndam bu sedd guy taxe na tey def nank daan ko jël bu rëy dem ñibbi. dafa génn Langsar. duggaat Langsar te nee na parewul pour génnaat Langsar moom Pape Ndoye. ñoo ngi ñaanal taxe yàlla may ko ndam. waaw kooku taal bi maam Samba la amuñu lu ñu xalaat si moom waaw yal na ko suñu maam dooleel Baye Fall. gars yi ñu ngi wax gars yi ñu ngi sa diggante ak Boy Niang. yow ana tante. tataay <laughs> sama tataay sama baax na boo bëggee xam ñu may bëre da nga dem si Maxime Mbargane nga laaj ko. waaw jaajëf. Barke siyaar naa làmb parce que njool la Ziza li mu sutee Cheikh bari na te bu doon maay Ziza Ziza nu mu toll nii Ousseyn doole ji ëpp na noonu combat bi mujj fi boo xoolee ni mu bëree ak ni mu daanee nga xam ne doole bi ëpp na noonu gis nga cokkaat door na ko les coups waaw mais Ziza da ko remise remise Ziza bi moo gën a dal sax bu Cheikh bi li waral mooy Cheikh Ziza taxawaay bi gis nga njool bi mu taay bi mu am bu doxee tànk sàcc Cheikh rek bu ko dóoree coup mun naa dal mais xeex arrangé wu ko gis nga jàppante ne ñoom ñaar jàppante nañ Ousseyn. Cheikh jàpp na Ziza jàpp na waaye mbokk yi booy xeex booy xool Ziza jàppul waaye Cheikh am na loxo ci ngemb. Ziza ngay dóor man maay moom nag Ziza damay xeex rek damay jàpp ba pare di dóor ci suuf ay uppercut di dóor pour Cheikh su pour Cheikh Super Diamono siggi est-ce que loolu wóor na ndax loolu mooy lekkam parce que loolu mooy combat bi fi mu toll nii mooy jàpp di dóor ay uppercut bu Cheikh siggi bu Cheikh siggee nga doog a bëre mais Cheikh ni muy def nii tôt ou tard mun na laa tuur wër la ndomba parce que ndam li mu am bii passé noonu la ko amee dafa mën a bëre moom la ci wàllu daa mën a bëre ndaanaan la ci bëre li mu war a ci war ci bëre ba léegi moom Cheikh Super Jamono waneeku ko te saa su ne bu daanee rek nga gis gis nga lu ma la doon wax dóor rek mooy arranger euh, visa dóor rek mais bi ma gisee làmb yi kii di Cheikh dafa concentré wu ci làmb ji moom waaw parce que visa lay bëreel. waaw doo yaa metti. bu bu xoolee Ziza dëkk doo la woon fayoo ko tas. maa la wax parce ñoom ñaar ku ci nekk dafa war a xeex. mais Ziza fi mu toll nii li mu bëgg mooy combat bi seex xeex mu mën a bëreeg moom gis nga. bëtt na ko waaye baaxul. seex fi mu bëgg jaaree du foofu la war a jaaree Ousseyn. parce que a fi mu jàpp ci loxo bi foofu bu bàyyiwut loxo bi fii ak rëccu seex mënu koo bët. déedéet mënu koo bët ñoom ñaar en tout cas lu mën a xew mooy dinañ xeex dinañ bëre mais ku ci def erreur bu ndaw tuuti sa morom exploité la daan la ci làmb ji dem ñibbi. Ziza ngay dóor Ziza ngay wax ci suuf waaye seexa nga jàpp fa mu jàpp ne ko du ma bàyyi Ziza Seex Super Jamono làmb ngi noonu ñoom ñaar ku ci nekk jàpp na am nga loxo ci ngemb Ziza ngay dóor Ziza bàyyil doomu jàmbur jo ngay dóor Ziza Seex Super Jamono. Ziza Seex a ngi jàpp rek ne tek Ziza ngay dóor fa muy dóor baaxul abit baa ngay wax ak moom foofu kenn du fa dóor Ziza Seex Super Jamono. Ziza pour mu génn ci combat bi Ousseyn faw mu xeex ndax su su bàyyee Seex conscience am rek mun na am lu ko bett ci làmb ji mais le fait que muy dóor xelu Seex bi di réer rek li mu bëgg dina ko am. mais Cheikh actuellement li tax xeexul moom it am na lu muy togg loolu muy togg moom la Ziza war a fexe fexe fexe ba xañ ko Cheikh ndax Cheikh ndaanaan la bërëb bi moo ko arrangé te bi mu jàppee ba léegi mu ngi xool ban bunt la mën a def pour daan Ziza li ma la wax sànq mooy Ziza ni mu toll nii doole ji ëpp na loolu. ni mu toll ëpp na noonu parce que ñu ci bari dañuy trompé wu ci Ziza état de forme bi mu tollu fekk ëpp na doole ji mu am ëpp na loolu kon loolu Cheikh nag fi mu toll nii pour mu génn si faw def ndànk rek. faw mu jàpp ba bëre di déglu faw mu jàpp di bëre faw mu jàpp ba gis turu doog a a doog a bëre. waaw seex seexa ngay demee moo ngay xëcc ci géew bi di xool ay tànkam sànq ba léegi moo ngi làmb plaqué ba waaye doxul ndax plaqué ba daa ñorul seexa ngi sëgg jàpp ndengeñ Ziza jàpp na benn loxo day rocc benn loxo dóor jàppaat rocciwaat benn loxo dóor jàppaat waaye seex am na ñaari loxo ci ngemb di nga Ziza dóoraat na dóor na dóoraat. dóoraat na Ziza ngay dóor mais bàyyi ji di yi muy dóor yu si bàyyi dalu est-ce que du perte énergie. waaw loolu laay ragal parce que Ziza dóor yi muy door te dóoru ko fi mu ko war a dóor bu yàggee mun naa perte énergie bu yàggee seex mun na gën di am confiance ndax bu booy dóor ba to day jàpp ni kii sonn na. jongale jongale na ko mais jongale bi daanu Ziza ndax seex Ziza li mu ko sutee dafa xaw a bari seex fi mu toll nii beneen kele la mën a def tante ko mais Ziza bu doon maay moom Ousseyn. saa ma jàppee rek dóor jël na ko plaqué na ko daan na ko daan na ko waatal nee na ko kaay waatal nee na ko waatal Cheikh daan na ko ndeysaan oh. daan na Cheikh Ziza sportif la ndaysaan am na ndam mais sportif la Cheikh tey wane waat na Ouzin leneen ci làmb li ma la doon wax am na cër ci làmb moom Cheikh wane na ni am na cër ci làmb parce que ku yi mu recevoir tey ku ko recevoir oon te tey parce que dafa am loo yaakaar ne ci mag ñi ndaw ñi lañ ci yaakaar dama wax ne réew mi ndaw jam tey nga jël bis dara jaale ko ki nga xamante ne mooy Moustapha Tall seen diggante yéen ñaar lan la. ñaari bëri ak liñ taxaw nag. alaaji Pam Moustapha Tall a ngi nii moom lañ tuddee drapeau bi. mu ànd ak délégation bu am solo la ñu ko gaal yàlla taal te ñu ngi ko fay mooy le Serigne Safa Tall mi ngi naan bii di jël galaaj di ko si def naan bii di Jamaïcain baax Jamaïcain ay Jamaïcain ñoo taw ma kii dafa bokk ci réew mi yaakaar ko tey bu ko tuddee li nga xam ne mooy combat bi malgré que temps bi sax xaw na kii mais lamb ji gënoon na siis lii dina xaar mais bi ko présenté la gars yi mbir yaa ngi dem de léegi nag ci diggante Pape Ndoye ak Taxe ñu ko doon ko wax Balla Gaye Junior Taxe moo ñu féetee à droite Pape Ndoye moo ñu féetee à gauche xale yaa ci diggi géew bi jili Ousseyn ñoom ñaar a ngi noonu ci diggi géew bi Pape Ndoye jiital tànk càmmoñ Taxe jiital tànk ndijoor ñoom ñaar ku ci nekk dafa am loo xamante ni war nga ko mën a def ci làmb Pape Ndoye daa duggoon Langsar am ndam ci kaw Abu Ñaase duggaat Langsar Taxe ne ko boo njëkkee ci man doo laal keneen ñuy xool ba xam Takké day na Pape Ndoye wala Pape Ndoye day continuer di dugg bi Langsar Ousseyn. Takké Takké moom ba mu fi mujjee fee ci arène nationale Boy Pouye la mujjee daan. da koo dóor mu daanu Ousseyn da koo dóor mu daanu diggante ak Boy Pouye Pape Ndoye combat bi weesu moom it daf cee am ndam diggante ak Abou Niasse mooy comme li ma wax waaye en tout cas ñoom ñaar ku ci nekk kii Fass la jugee Père Ibrahima Mbaye ko indi kee Langsar la jugee ki ko indi ndaysaan mooy ki nga xamante ni mooy Père Max Mbargane ah gars yi daal xam naa ne ñu ngi dugg ci làmb ji naan mbëri gisuñu wala arbitre yi gisuñu waaye projecteur yi yaakaar naa terewul gis kenn wax dëgg ci yàlla. xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi ku ci nekk yaa ngi ne tekk waaye li ma ci jaaxal taxawaay bi ku ci nekk da ngaa si ginne taxaw ne jonn Pape Ndoye ngi taxaw di ko lii ci biir bët taxee ngi koy xool Pape Ndoye mépp na léegi waaye demul. ñoo ngay lewaatoo di xoolante ñoom ñaar taxel lewaatoo na ba mu neex ko mu dag ko mais bàyyi jiili su ma doon xool arbitre bi waat na leen ci diggi géew bi arbitre baa ngi leen di woo bërewu leen loolu la leen di wax moo ngi wax ak ñaari mbëri arbitre bi siflewaat na jege yaatoo nañ bàyyi jiili su ma doon laaj taxe ak Pape Ndoye ku ci ñoom ñaar ku ci nekk lan mooy sa avantage loo may wax. Ousseyn avantage su Pape Ndoye actuellement ci combat bi dama koo gisul ndax daa mel ne da koo nar bàyyi avantage mooy bu arbitre prime rek nga agressé sa takk. li mu daan wax dóor ko dóor ko agressé ko dox ci kawam xeex ak moom. takk nag nii muy bëree actuellement mooy combat mooy su ma ko doon digal dama naan ko taxawal toog say tànk déglu Pape Ndoye lu mu indi nga jàppante moom bëre. mais Pape Ndoye actuellement su ma ko yeboon indi ko dama naan ko doxal ci kaw taqee xeex ak moom ndax lamb chaque fois Ouzin xeex dafa am ku mu arrangé bëre da am ku mu arrangé ndax loolu mooy làmb ñii dañuy mën a bëre mën a xeex ñii mën a xeex mën a bëre ñii mën xeex ta duñ mën bëre ñii mën bëre te duñ mën xeex te loolu mooy làmb fi mu toll nii. kon su ma déggee wax ji mooy Pape Ndoye lii muy def nii du avantage bi ci làmb ji. déedéet du avantage am ci lamb ndax avantage am moo doon arbitre na prip mu dox ci kaw taqee xeex ak moom waaye gis nga takk fi mu toll nii bis bi lu muy diis diis diis wanewul ne bis bi daa diis si moom da koo téye rek di déglu Pape Ndoye takk fi mu toll nii nag actuellement arbitre yi lay déglu ba xam day saax saaxe Pape Ndoye wala Pape Ndoye day saax saaxe takke waaye ñoom ñaar ñu ngi déglu rek gis nga takke da koo bëgg a jeexal loolu nag du avantage du takke ndax bu dawee jëli Pape Ndoye te gisu Pape Ndoye mun na jël bu ko bet gis nga gis nga ñoom ñaar fi mu toll ni xeex bi dina commencé waaye Pape Ndoye daa teey te teey boobu ci taqa lañ ko waroon séntu waaye taqa fi mu toll ni gis nga li muy bëre yëpp mu ngi liir combat bi mu ngi xool Pape Ndoye fan la ko mën a jaar waaye picc nga ca kaw xel maa ngi ci suuf Pape Ndoye yàgg da lii sama xel est ci tànk yi la jëm ca tànk a la jëm looloo avantage am ci lamb Ndoye tôt ou tard ci tànk takk yi la jëm waaye buy dem lam fay fekk ak buy dem nan lay demee loolu laay laajte man waaw mun naa dóor rek daw ñëw moom Pape Ndoye taxe tamit bu séenee Pape Ndoye buy daw di ñëw mun naa daw jëli tànk bi mais gis nga lu mën a xew mooy Pape Ndoye daa bëgg a cokkaas taqe taqe na su doon maay moom du ma xaar ba Pape ndooy indi ma teggi waaye li mu war a def mooy fermer tànkam wàcc ci tànk yi aj bi ci kawam di xaar lu Pape Ndoye dóor nga faxas lu mu dóor nga faxas ndax Pape Ndoye bëreetam neexut a téye Ousseyn. booy xool kii di eh, Pape Ndoye na léegi taqe ku bu daal bokk na ci li ko wàññi waaye taqe ta na taxawaayam moo ngi dox ci kaw Pape Ndoye waaye loo ci mën a wax ba waxoon ci daal mooy bés bu Pape Ndoye di dem na xam na muy demee ndax taxe daa diis su demee te jàppul wala mu dem te dugg bi baaxul wa eh, yaakaar naa ne bés bu taxe wàccee ci kawam leneen la ñuy wax baa ji. leneen la ñuy wax parce que Ouzin taxe dafa diis te Pape ndooy moo gën a nekk poids léger te Pape Ndoye tamit moo gën a mobile gis nga lu ma la waxoon day xeex mais xeex bi yëpp da ngay xam fi nga jom jëm taxe ngay dóor xeex bi yëpp laa ma ji dinañ xeex mais bu doon maay taxe dinaa def ndànk. ndax na muy xeexee actuellement dina baax ci moom waaye Pape Ndoye moo bàyyi yoonam ndax dafa waroon agressé Takké warul woon xaar Takké di ko woo ci xeex moom moo waroon woo Takké ci xeex waaye warul woon xaar Takké di ko woo ci xeex Ousseyn. warul woon woo warul woon woo Takké ci xeex mais boo xoolee ni Pape Ndoye di bëree baaxul ndax kii di Takké day am confiance daa fàtte angle yi dox ci kawam Pape Ndoye amatul chance li mën a def mooy gauche droite déplacé wu gauche droite déplacé wu na fexe nag na dóor kuy bi atteint waaw Pape Ndoye day jël avertissement ndax taqe mooy dox ci koom waaye day jël avertissement benn ndax taqe mooy dox ci koom waaye loolu jeexalul làmb ji Ousseyn ndax Pape Ndoye fi mu toll nii actuellement daa wan taqe nii dama laa ragal te ragalu ma la Pape Ndoye daa wan ne ni taqe nii damaa duggoon Langsar am fa ndam yéen a soxla ndam li waaye man soxla ma ndam Langsar léegi moo tax taqe fi mu toll nii Pape Ndoye da koo bàyyi combat bu taqe bi bëggee ñëw mu aju bu bëggee ñëw mu aju aju boobu nag bu yàggee ci taqe day dem ba day énervé wu day mer te bu meree mun naa dox ci kaw Pape Ndoye dox boo xam ne du ko arrangé mais lu mën a xew mooy Pape Ndoye actuellement li ñu doon séntu ci moom étape bi njëkk bi mooy xeex bi ñu doon xaar ni Pape Ndoye war na koo indi Pape Ndoye indiwu ko gisuñu ko ci moom xaw ma nag ba xam dañ ko ko yabee xaw ma ba xam déet day xaar ba ci kanam waaye en tout cas lu mën a xew mooy combat bi njott nañ ni war naa mën a am xeex war naa mën a am bëre Pape Ndoye décidé na Ouzin teg na tànk bi taxaw. Pape Ndoye décidé na eh taxa door na ko kuubu daal eh eh Pape Ndoye taxee ñoo ngay xeex di ko door ba doomu ci ñoo ma ngay door uppercut moom taqee uppercut bi muy dóor Pape Ndoye dal na waaye Pape Ndoye gis nga li ma la doon wax pam Ndoye warul bàyyi loolu ma ngay fayu ndax ñoom ñaar ku ci nekk xeex dafa am nu mu arrangé sa morom pam Ndoye nag ni mu toll nii Ousseyn doole ji ëpp na noonu boo gisee macha allah cuisse bi nu mu toll ak ni mu toll nga xam ni doole ji ëpp na loolu est ce que taqe moo doole Pape Ndoye est ce que Pape Ndoye day aspiré taqe ba mu jeex mu bëreeg moom mais en tout cas ñoom ñaar ku ci nekk jàpp na ci ngemb Ousseyn. ku ci nekk jàpp nga ci ngemb waaye ni ma gisee Pape Ndoye taxawee taxa taxawee ko baaxul ñaari tànk yi mu tajale bu ko bu ko Pape Ndoye waxee gis nga la ma la doon wax Pape Ndoye taxa na mu taxawee baaxul te mbër buy taxaw day écarté ay tànkam mais gis nga écarté na ko dafa mel ni dafa dégg la may wax. Pape Ndoye taxawee da koy dégg Ousseyn mais écartement Pape Ndoye Euh, taqe nii mu écarté du noonu la ñuy écarté booy écarté sa benn tànk day jiitu beneen bi nekk ci ginnaaw bu bu loo caxabalee nga am équilibre mais nii bu Pape Ndoye jékki-jékkoon liir ko daw caxabal ko bu reculer rek day toog danaan detter toog Pape Ndoye nag nii mu def benn tànk bi benn bi devant benn bi derrière baax na parce que mbër noonu lay taxawee mais en tout cas lu mën a xew mooy ñoom ñaar fi mu toll ni taqe jàpp na mu ngi liir mu ngi déglu xaw ma lan lay togg waaye Pape Ndoye tamit am na lu mu bëgg ba wala taqe day may Pape Ndoye en lu mën a xam mooy combat bi li ñu yaakaaroon bu arbitre ne dina gaaw ba léegi gaawagul ci ñoom ñaari xale yi gaawagul ci Takké gaawagul ci Pape Ndoye gaawagul sax ci reporteru lamb yi. gaawagul ci kenn moo tax xale yaay noonu ci géew bi Takké ngay dóor Pape Ndoye jàpp na da koo bëgg a zongale wala lu mu ko bëgg def waaye loo ci mën a xam-xam ba xam-xam ko oh Pape Ndoye Takké wéere na ko Takké dellusiwaat. Pape Ndoye dafa mel ni ku bëgg a zongale taxee mais est que loolu mën naa nekk. zongale fort na. Eh, Pape Ndoye. Pape Ndoye daan na ko. daan na ko Pape Ndoye daan na ko. daan na ko. daan doon wax. newoon naa la. bu la caxabalee ni nga taxawee baaxul benn tànk bi jiituwul beneen tànk bi bu la caxabalee rek Ousseyn da nga naan derteer jaaxaan Pape Ndoye def na lecture boobu lii na combat bi daan na tax a jël bu amul benn werante loolu mooy lan. oh Pape Ndoye fan la jëm fan la jëm bi Lansar. su doon maa moom du ma génn bi dama fay des fa ba tey. kan la fay bëree Ousseyn kan moo fay bëree. kan mooy ñëw est-ce que Coly Faye numéro 2 du ba tey mën naa nekk. gis nga Maama Lamine du ñëw. a feree de lang sa. en tout cas daal moo ngi def semaine. xale France si taa ngi noonu. a boo ñëwee entraînement li muy contact ak gars yi ñu ko ëpp doole ngay xam ne ko bi ma jëlee combat bi ñu bëri na perte may la xam naa dina daan takk parce que moo ko ëpp pexe. te bëre pexe la te nañ dem ba ci kanam. comme Maxime man ngaa nee na nag doyalagul damay dugal Lamsaar. ku ma jox foofu ma jël nag. Ah Maama Lamine nga fa si tàng fa. xoolal xale bii de bu baax a baax a baax sama diggante maam Aram sax ma leeral ko moom laa gën a bëgg man. moo moo des. non waaw ba tey Tidiane Faye bëgg ah yaa ngi door a ñëw nag. kooku noonu mooy galangaar gi foofu. ci Lamsaar bopp Tidiane Faye ak boy bii dama koo bëgg professeur bu ñëwee professeur bu ne yaa ngi jàngat. jàng du wees.

maa ngi sant sama yaay bu baax a baax sama yaay sama papa maa ngi leen sant. tey ni nga bëree dañu yaakaaroon bu arbitre ne prip da ngay agressé sa taqe dox ci koom nga ñëw indi leen. laa bëggoon mais nit ku nekk da ngay am kilifa quoi dama am kilifa la roo sama mag ak sama kër si ma ñëw ba fii ñu bul xeex. jéemal nga aj say loxo bu la woowee ci xeex nga jéem ko ndax bëreeg moom xam nga mais barke alxuraan combat bi yëpp lii laa ci préparé. da dugg Langsar am ndam duggaat Langsar am ndam foo jëm. damay duggaat Langsar foo fa soxla kan. mais Tidiane Faye na ñëw. <laughs> professeur le professeur na ñëw ma war ko ni du professeur maay professeur bi.